mbégte la ñu am saa su ne nga xam ne yéen ñuy top ci chaîne BDFT TV Sénégal la chaîne des patriotes di la wax na nga dal di abonné way itam activer cloche de notification bi pour vidéo bu ndug rek ngeen mën ci jóg bu len faté nak di like li nga xamné ne modi vidéo bi mo ñuy gëna may li nga xamné nak nag modi dolé inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nak la ñu daal di wax xibaar abu tiis mo dal di dal ci kaw ki nga xamné ne nag modi moo di Maham Diallo nekk itam ki nga xamné mo yor dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr mom nak la ñu xëy daal di ñuy tàggee ab xibaar bu tiis boo xam ne dal na ci kawam ñuy wax ne eh, kii di waajuram bu jigéen nag moo daal di génn àdduna mu nekk itam xibaar boo xam ne naqare na lool ba tax na daal ñu ngi koy jàlle bépp eh, Sénégalais boo xam ne nag yaa ngi yewoo eh, fii ci réewum senegal mbaate sax nga nekk bitim réew di ko jaal itam juge yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu bu Sénégal moom Omar Maham Diallo nag la ñu tàgg ne moom waajuram bu jigéen dafa daal di wuy ji boromam ba tax na daal équipe bii di FT TV Sénégal la chaîne des patriotes di ko ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko aljanay firdawsi ak képp ku fa fekk di la wax ne itam nga daal di abonné waaye itam di like vidéo yi parce que mu ñuy gën a may doole